Ça fait trois ans de cela, organisé un grand événement, Folie magic Grande. Nous prions ici 100 meilleurs élèves de la Médina. Nous ay des kits scolaires, des cadeaux, des cadeaux. Invité collègues qui a eu une chance L'année suivante, nous avons organisé un grand événement au niveau du quartier de, de, fan la ñuy plus de 1000 kits jox ko élèves yi kon loolu yàgg cette année ñu changé méthode bi def ay lots ñu war ko distribuer ci écoles yi nekk à la Médina ba de Gibraltar depuis ce matin avec la délégation de la CATB ñi ngi yëngu ci loolu commencé ko Centenaire Gibraltar mujjee ko fii école Médine te bu ñu jógee fii ci quatre écoles yi nekk biir euh, école Médine Soumbédioune lañ jëm te loolu yëpp li sabab mooy Proxim Médina et avant l'existence de Proxim Médina Proxim jeune la nous ñu dem ba def ko Proxim Médina ba dem nañu ba créer Proxim service loolu yëpp lu muy ëmb rek mooy dañuy yàggu sur le dañuy sur le volet social te Cheikh Ahmed Tidiane Ba attaché une très grande importance Moi Tay tey ñu ñëw à son nom boo cette délégation bi tout âge confondu góor ak vraiment ñëpp rafetlu nañ ko. parents yi ñu ngi def lu ñu mais am nañu fait loxo jotul seen Cheikh Ahmed Tidiane ba ñu la xalat ñeu jox ko directeur d'école ñi xol leen xalé yi nga xamantene tay kay 32 pages sax am nañu problème pour euh, pour pour pour pour pour jënd ko mu ñeu jël jox leen ko mais nak li ci ëpp solo symbole la symbole bi moy xalé yi nekk Mamour jaxaté war nañu mëna a tay am nañu référence am nañu modèle au niveau de la Médina à la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Ba parce que fi la lu am solo ngi nonu liñ fi gis tay muy xamné le leader euh, de la CATB Cheikh Ahmed Tidiane Ba li def. manam indi fi lot lot de fourniture yoo xam ne solo yakarna parents parent bo boo dafa amone problème si nan lay jëndé fourniture ba concept bi ça fait des années ñu wax ubbi tay jang tay ndax li li doon indi problème parents yi mooy du am fourniture du xam duñu duggee classe loxo neen lañ fay indé mais liñ gis ni muy lo yu am solo yaakaar naa dinañ jàppale école bi dina jàppale parents yi wàññi leen si yenn dépense ndax ñëpp xam nañ ne Sénégal métti na waaw soo jógee si fête bi yaa ngi si leneen fête donc déjà lii loo xam ne dina jàppale parents d'élèves yu bëri xam ne dañuy ñëw rek concept bi même su nekkul tey mën na nekk suba wala nekk au plus tard lundi. Et la CATB est prête à apporter une solution au problème des Médinois surtout des enfants parce que lépp loo xamante ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba mi ngi ko doon dox boobu ba léegi lu jëm si xale yi la tur bi mi am. li mu am Médina doole bi mu am mi ngi ko jëlee ci ndaw ñi.